dégg ngeen si Muaaz doomu Jabal na di yàlla gërëm allah yaa ngi mu ne kuntu nekkoon naa rit fan nabi di porte yonent bi sa di porte di nekk ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala ximaarin ci kaw mbaam yonent mbaam la waroon mbaam porte Muaaz Muaaz mu ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam <coughs> gis nga yonent daan war lépp waruwaay yëpp fa qaala mu ne yaa Muaaz yow Muaaz hal tadri ndax xam nga maa xaqullaahi lan mooy àq yàlla ala ibaadi ci jaamam yi wa maa xaqul ibaadi lan mooy àqi jaam yàlla laay ci yàlla yonent ne ko Muaaz ndax xam nga lan mooy àq yàlla ci jaamam yi ak lan mooy àqi jaam yi ci yàlla ndax xam nga lan mooy àq yàlla ci jaamam yi ak lan mooy àq jaam yi ci yàlla loolu la ko wax maanaam ak yàlla am ci jaam yi lan la ak jàq ak bi jaam bi am ci yàlla jaam bi tamit dafa am ak yàlla mi bind jaam yi daf leen jox ak boo xam ne seen duraa la kultu ma nekk allah wa yàlla wa rasulahu yonentum aalamu ñoo gën a xam fii nag moo ko xadis bëri benn la fu mu ko waxee yow Muaz mu ne ko labbayka wa saadayka uy naa la ak sa texe gannaaw sa wala ñëw naa ànd ak dimbale la gannaaw dimbale muy wuyu sa mbir kultu allah yàlla wa rasul yonentu alam ñoo gën a xam xaala yonentu ne fay na xaqal laa naka ak yàlla ala ci jaam yi <coughs> an yaabudu moo jaamu ko wala yushriku buñ bokkaale bii moom seen dara ak yàlla ci jaam yi maa ko jaam yi jaamu buñ ko bokkaale dara loolu duraa bu yàlla am kon jaamu yàlla def sa devoir la daf laa war nga jaamu yàlla bul ko bokkaale dara loolu àq la goo xam ne ni àq yàlla la ci jaami kon jaam bu nekk yàlla am na ci yow àq te mooy nga jaamu ko bul ko bokkaale dara loolu daf lay neex nga def ko mu neex la nga bokk da nga ko war a def wa xaqul ibaadi àqi jaami yàlla ci yàlla an laa yuazib mu bañ a mbugal man ka nga xam ne laa yushrik du bokkaale bi ci moom si an dara xaqi jaam yi ci yàlla nag jaam bi duraa bi mu am ci yàlla mooy bu yàlla mbugal bu bokkaale wu daal loolu yàlla moom du sànq ak jàmbur képp ku bokkaale wu yàlla moo ko moom waaye daf ko def duraa def ko xàq boo xam ne du ko dañ du ko dindi mukk kon yàlla boo ko joxee ak xam rek am nga àq ci moom mooy warul laa mbugal te du la mbugal àq yàlla nag mooy jaamu ko bañ ko wokkaale boole ñaari moo gën a wóor jaamu ko bañ ko wokkaale soo defee loolu nag ak sa àq ci yàlla mooy yàlla bañ laa mbugal fa qultu ma ya rasulallah yonent yàlla bi afala ubashiru ma ndax du ma bégal annaasa nit ñi waaw est ce que du ma wax nit ñi lii ñu bég xaala mu ne laa tubashirum bu leen bégal fay takkilu kon ñu wakiilu ci loolu maanaam ñu tayal soo leen bégalee dañuy mujj tayal muttafaqun alayhi hadis bi ñu dëppoo la waaw man ñoo jàpp ci wax ji rek bàyyi ah te suñ bàyyilikoo rek mën nañ cee mujj xegg foo xam ne yàlla dootu leen sax bokk baalati ndax sàggan dafay yóbbee nit ci bàkkaar bu ndaw bàkkaar bu ndaw yóbbu nit ci bàkkaar bu mag bàkkaar bu mag yóbbu nit ci kéeféer kéeféer moom ku ko def yow amutoo benn xaq ci yàlla safar rek mooy si dëkkuwaay loolu waral ñu bañ ñu sukkandiku ci wax yi ba sàggan sàggan googu mën naa dem ba roj seen gëm yàlla far même bu fekkee bokkaale yàlla boo ci muccee rek mucc nga safara duggaal jana même bu dee noonu la da war a góorgóorlu ndax boo góorgóorlu mën ngaa dem ba bokkaale yàlla balaa ngay dee yonentu bañ ñuy wax leen lii ndax bu leen ko waxee dañuy wakkiilu ci loolu <coughs> dëppoo la وعن البراء بن عازب جلنا انت براء دوم عازب رضي الله عنه ما يلي على جملة من النار عن النبي مجلس ينتبه صلى الله عليه وسلم قال ينتبه المسلم جلد إذا سئل بنك لاجئ في القبر كبام من يشهد لي سير أن لا إله أنا مبين بن ورجام إلا الله لما يلا وأن محمدا مسلم محمد rasulullah yonent yàlla <coughs> fa zaliku loolu qawluhu mooy wax yàlla taala kawe na la yusabitu dana dëgëral allahu yàlla allazina gaa yi nga xam ne amanu gëm nañ bil qawli saabiti ci wax ji aji sax fil xayaati dunya ci dund àdduna wu fil aaxirati ak ci àlaaxira nit ku génn àdduna su neexee yàlla mu yebal ñaari malaaka ñu laaj ko dégg nga ci bàmmeelam kan mooy sa borom kan ngay jaamu waaye jullit moom buñ ko laajee dafay seede ne yàlla rek yàlla Muhammad yonentu yàlla la maanaam lépp luñ ko laaj ci wàllu islaamam moom jullit dana tontu tontu gu wér loolu la du looy mokkal ni nga mel rek noonu ngay tontee loolu la yàlla wax ne yàlla dana dëgëral ñi nga xam ne gëm nañ wax ju sax jota mooy laa ilaha illallah ci àdduna ak ci àllaxira ñi gëm laa ilaha illallah yàlla dana leen dëgëral ci àdduna defar seen mbir yàlla dana leen dëgëral ci àllaxira ba bu leen malaaka yi ñu mën a tontu muttafaqun alayhi hadis ñu dëppoo kon hadis bi wane na julit dana mucc ci mbugalam bàmmeel dégg nga waan anas jëlee nañ ci anas <coughs> radiyallahu anhu yàlla yàlla gërëm an rasulillahi mu jële si yonent yàlla bi salla yàlla doole ko allah yàlla si moom wasalama doole ko musal qaala wax na anas nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na innal kaafira naka yéeféer naka yéeféer ida amila bu jëfee xasanatan jëf ju rafet utima ñu lexal biha ci jëf jooju ñu lexal ko tombatan ak wërsëg mais duniyaa ci àdduna yàlla ku baax la du sànq jëf yéeféer lu mu bon bon su defee lu baax yàlla wërsëg àdduna la koy faye yokkal ko xéwali àdduna yokkal koy garaat ci àdduna ndax yàlla du sank jëf kon yonent nee na bu defee lu baax yàlla layal ko ko wërsëg ci àdduna waaye wa amal mumin waaye ki gëm yàlla fay na laa naka yàlla taala kawale yu daxtilu day denc lawu ñeel ko xasanaat yi ay jëfam yu rafet fi axirati ci alaxira dégg nga wa yunqibuhu mu jox ko risqan wërsëg fi dunya ci àdduna ala taati yi ci kaw sababu topp yàlla ngir topp yàlla gi muy topp yàlla julit moom bu toppee yàlla yàlla daf koy ubbil buntu wërsëg yi du fay de xéwal yàlla la ko yàlla defal kontaan yàlla dafa kontaan ci jaam bi ubbil ko bunti wërsëg jox ko wërsëg ci àdduna tiyaabaam yëpp mu dencal ko àllaaxira fay ko foofu kon moom am na ñaar yëpp hmm? jullit bu amul lu ne gàññ ci àdduna yit danga am xol bu dal ndax gëm na yàlla mën naa muñ loolu rek bànneex la nof la dégg nga te ku dund rek yàlla jox la moom wax dëgg ak lu mu gàtt gàtt loo dundee kon su ko defee yéeféer <coughs> fayam yëpp ci àdduna la yem yu baaxam yi yàlla daf koy jox ci àddina waaye jullit moom yu baaxam yi daf koy dencal alaaxira te teewul dana ko jox lay wërsëgam ci àddina ngir topp yàlla gi muy topp yàlla wa fi riwaayatin ci beneen nettali mu ne inna laa naka yàlla laa yazlimu du tooñ muminan aji gëm wala boobu laa yazlimu du wàññil muminan aji gëm asanatan benn tiyaaba yontaa danañ ko jox bihaa ci ngir tiyaaba googu ci àddina wa yujzaa danañ ko fay bihaa ngir tiyaaba googu fil axirati ci àlaxira ku gëm yàlla yàlla du ko wàññil jëf ju baax moo tax jublul yàlla moom nga xam ne moo la moom li la war sa digganteeg moom góor góorgóorlu ci taxawee boo ko taxawee yàlla du la wàññil dara ci tiyaaba sa àddina yàlla dinaa la ci jox dégg nga ubbil la buntu wërsëg waaye sa àllaaxira it yàlla dana la ko fay ñaareel sax mooy musumaa ku am ku taamul wërsëg yi àddina dafay dëdd àddina waaye li ko yàlla jox joxul ko borom alal yonent sallallahu alayhi wasallam daan na may téeméeri gërëm mos ngaa gis kooku def loolu gis nga kii dafa yoo xam ne dépasse amuñ ko waaye dina wër nañ ko fu ne dem nañ fa hmm? buur ak baadoo ñu ngi seen gannaaw te dañ daan toog di ñàkk dépasse léegi-léegi nañ jàng si fa léegi-léegi <coughs> yàlla defal leen ci wërsëg loo xam ne kenn xamu nu mu toll ko maye ko yonentu sallallahu alayhi wasallam ba ne andi lañ ko woo xam ne nii boo toogee ci wàll gii doo seen ku toog ci wàll gëre loolu ñaata la war doon hmm? mu séddale seen ñàkk boo gëmee yàlla yàlla ubbil la fay la ci waa mal kaafir waaye yéeféer fayu taamu danañ ko wërsëgal bi xasanaatin ci jëf bi xasanaati maa amila ci tiyaabaay lam jëf lillaahi ngir yàlla taala ko wane fi duniyaa ci àddina yéeféer bu fekkee benn waaye bu sonn mu xettali ko la ñu def ko dem tabax école jublu ci dara bëgg rek nañuy wut ci xam-xam ñu def ko léeg ñu dimbalaate te yàlla tax léeg-léeg ñu defar hôpital ngir nit ñu faju ci léeg ñu fekk hôpital dem jënd garab yu bari dem yóbbul leen ko hmm? léeg-léeg sax ñu jël ay ñam jox ko ay ñu néew doole ñu ngi def lu baax ñu ngi def social hmm? tiyaaba yam def na ngir yàlla ci àdduna yàlla daf koy wërsëgal <coughs> moo tax wërsëg bu la dàq joxe moo la ëpp wërsëg <laughs> hatta ida afda ba mu demee ilal axirati ci àlaxira rek lam yakun du nekk law ñeel ko xasanatun tiyaaba yujzaa dinañ ko fay biyaa ci moom bu demee ba laaxira du fa fekk benn tiyaaba bu ko yàlla di fay ndax lam defoon ci lu baax yëpp yàlla <clears throat> fay na ko ko ci àdduna mu faj ci ndax tiyaabaay alaaxira moo gën foofu tiyaabaay àdduna damaa solo na ko muslim <clears throat> kon xadis yi dëggal na ne yéeféer li mu def ci lu baax danañ ko ko fay danañ ko ko fay yàlla nag bu demee ba yéeféer bi nga xam ne nangulul ko mu di ko fay yu baax mi waxuma la ak jullit moo tax ku yeboo def lu baax ne laa laa yu di ajral muhsin ne yàlla du sànk mukk jëfi ñooy rafetal képp ci yoon wu rafet rek da nga mujjee baax waan jaabir dina nañ ci jaabir radiyallaahu anhu yàlla ko yàlla gërëm qaala wax na ne qaala wax na rasulullah yonent yàlla bi sall yàlla doole xewal allah yàlla alay si moom masalama doole gu musal jaabir nee na yonent bi nee na masalu salawaatil xamsi misaalu julli juróomi ka masali nahrin comme misaalu dex jaarin bi aji daw xamrin bi aji bëri ala baabi ahadikum nekk buntu kenn ci yéen yaxtasilu dana sangu minu ci moom kulli yawmin bis bu nekk xam sa maraatin juróom yonent bi sa alayhi wasallam nee na ku amoon dex bu nekk sa bunt kër bari ndox lool bis bu nekk nga sangu si juróom yoon ndax da nga tilim mu ne ko dee rek mu ne julli noonu la mel moo tax ku bëgg a mbaax respecté julli juróomi rek fexeel suba nga julli ko ci waxtoom tey toroxlu mooy di xalaat yàlla ci julli ci kooku mën julli ci mbooloo moo gën te subaat noonu takkusaan timis gaye yii boo ko respecté bu yàggee ngay dëgg-dëgg jullit yii boo ko respecté sa bàkkaar yëpp faaru waaye ku sàgganee julli juróomi lu dul julli lay gën a sàggane kooku du mën a baax dégg nga lan la ku sàgganee julli juróomi du mën a baax alxamru nag alxamru mooy alkasir lu bëri dégg nga waan ibnu abbas yéen nañ ci ibnu abbas waan ibnu abbas yéen nañ ci ibnu abbas day laal ma ne la gëm la ñoom ñaar xaala mu ne sami'tu dégg naa rasulullah yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi moom mosam dol mosam yaqul muy wax naan maa min rajulin amul benn góor muslimin bay julit yamuutu dana dee lii lu am yaakaar la fa yaqumu mu taxaw ala janaazati ci ba arbauna rajulan ñeent fukki góor laa yushrikuuna duñ bokkaale billaahi ci yàlla ci an dara illaa shafaahum lu may ràmm ne leen allah yàlla fii ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ibnu abbas ne maa ko dégg mu naan jullit bu génn àdduna ñeent fukki góor julleeku di ñaan yàlla yàlla jégal ko yàlla may leen njéggal ràmm waaj baal kon néew bu am ñeent fukki góor xamal ne boroom aljana la jëm <laughs> néew bu amul ñeent fukki góor léegi bëriwul moo tax da ngeen def nànk rek bu nit génne àdduna daal ba yàkkamtu yàkkamtu wut leen quarante góor rek jullee ñeent fukki góor buñ dajee jullee nit ngir yàlla ràmm ko kooku yàlla ramm na ko loolu yaakaaru la ndax yàlla mbooloo moom duñ toog di ko ñaan tabaalu leen loolu ngeen ci déggee mooy fu ñeen fukk dajee di ñaan yàlla yàlla baal leen jox leen lañ bëgg mbooloo loolu waral moom solo ñeen fukki nit fu ñu dajee ngir aajo xam leen aajo boobu yàlla dina ko faj bu la neexee sa yow def soo amee soxla rek dajale 40 nit rek ñaan lo. leen yalla 40 personnes rek ñaan lo leen yalla xamal ne dana nangu ñaan ka rawatina quarante xale yoo amagut benn bakkaar te yéen dégg <coughs> mu di te faalewul leen wala nga ne mbooloo mu toll nii foo ko fekk am na bool yi seen biir te wali boobu du delloo ñaanam rawaasroo na ko muslim imaamu muslim beneen xadis mu ne waan ibnu masud jëlee nañ ci ibnu masud radiallahu anhu yàlla ko yàlla gërëm xaala mu ne naa nekkoon nañ mhm. maa rasulillahi ànd ak fi xubbatin ci benn mbaar xubba mooy néeg bu ndaw am am mbaar ndax wan ñu tolloog min arbaina si ñeen fukki nit fa qaala yonent ne atar daw na ndax gërëm ngeen an takunu ngeen nekk ruba ahli jannati di kaaru ñuy aljana maanaam boo ñu aljana yëpp ci xeet yi boole boo leen xaajee ñeenti xaaj benn xaaj bi yëpp xeetu yonent la sallallahu alayhi wa sallam lay bokk ndax bëgg ngeen toll lool xul naa ñu ne ko naam waaw mooy ëpp ngeen loolu de xaala mu ne attar daw na ndax gërëm ngeen an takkuna ngeen nekk sulu sa ahli janna di ceeru waa aljana waa aljana boo leen xaaj ñetti xaaj ndax bëgg ngeen benn xaaj bi yëpp nekk ci xeet xeetu yonent bi sallallahu laa wasallam xul naa ñu ne ko naam waaw xaala mu ne wallazi maa ngi gën ci ki nga xam ne nafsu muhammadin bakkanu muhammad muy bakkan bu tedd bi yadihi mu ci loxom ko ko yàlla inni naka man la arju danaa yaakaar an takunu ngeen nekk nisf ahlil jannati di génn wala waa aljana waxuma sax ceer bi waaye aljana boo leen xaajee ñu dugg aljana boo xaajee ci digg bi genn wàll gi yëpp ci xeet yonent la ñu bokk yeneen yi ci yeneen xeet yi kon xeet yonent ñoo ëpp aljana wa loolu li ko waral mooy an aljanat naka aljana laa yadxuluhaa du ko dugg illaa nafsun lu mooy bakkan muslimatun bu jébbalu aljana jullit rek moo fa mën a dugg wa ma antum te dël yéen fi ahli shirki ci bokkaalekat yi illaa ka chaarati lu may karaw albaydaay bu weex fii jildi sawri ci deru yëkk al aswadi bu ñuul aw ka chaarati wala ngeen mel ni benn karaw asawdaay bu ñuul fii jildi sawri ci deru yëkk al ahmari bu xonq yéen bokkaale tuuti la ci xeet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xel bi lu xam ne yàlla am na yonent bi sallallahu alayhi xam ne àllaaxira am na bokkaalekat yi mooy ni karaw gu ñuul benn karaw gu ñuul mel ak yëkk bu weex yëkk bu ñuul kon eh, benn karaw gu weex mel ak yëkk bu ñuul ba fekkee yëkk bu ñuul kukk nga gis benn karaw gu weex xam nga loolu tuuti la ci boo comparé bokkaale ki xewoon ci xeetu jiitu ak bokkaale gi xew ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokkaale gi xew ci xeetu yonent bi tuuti lay doon kii na namul ci benn karaw parce que mo mosoo gis raw bu ñuul kukk benn karaw rek weex ci waaye dafa bëgg wax ne loolu luñ tuutee yéen noonu ngeen tuutee ci biir bokkaalekat yi te bokkaalekat yi ñoo dugg safara moo tax gars yi ñoo leen ëpp safara yéen ñu ëpp ci yéen aljana ngeen jëm kon bokkaale ci xeet yonent bi sallallahu alayhi wasallam par rapport ak yeneen xeet yi dafa mel ni yëkku ñuul kukk nga ci benn karaw gu weex boobu mooy xeet yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala boog yëkku uh, xonq cor nga génn ci benn karaw gu ñuul yooyu benn la rek muttafaqun hmm? alayhi hadis bi dëppoo la hada dinul islam mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu